ko dal leen ak jàmm yéen a yu bari xëyandoo tey tolluwaayu réew mi euh, bokk na ci wàññi njeg yi ak i tamit euh, njëgu luwaas gi Walf Quotidien di ñu xam lekk euh, président Bassirou Diomaye fay ñaari poñ yile moom la sasoo ci jamono ji yéen a kaay bi ne mun naa jafe lool ndax mbirum fiscalité ak fu koomu àddina gi toll ak bu Sénégal mu ngi ci yéen a kaay bi di Walf Quotidien yéen a kaay di Tribune ne jafe-jafe ci wàllu kom Bassirou Diomaye fay moom xelam dala gum ci ne ëllëg yu naat la nar soobu jëru gi ñu dénk wàllu finance ci nguuram xamle ne mun nañoo soobu ci jafe-jafe yu tar ci wàllum koom Cheikh Diba fàttali itamit ne lu aju ci budget beeg na mu demee ak bor bi fi nguuruk Macky Sall bàyyi mun naa gàllankoor seen jéego ci wàllu koom yéen kaabi di la mandaane jéego gu mag la fas yéene defe ji ca bitim réew tukkeem bu njëkk président Bassirou Diomaye Faye fas yéene wutali euh, Mauritanie euh, foofee ca Nouakchott euh, laaj dal di samp nag ndax lam fay doxi lu mu ba ca mooy ndax day dëgëral jëflante gi diggante Sénégal ak Mauritanie la mandaane ci jamono ji nguurug Macky Sall jeex na tàkk xañ lañ leen sax ay ministre am ay seeni passeport diplomatique mënatuñ ko tukkee yéen kaabi di source mu ngi ñuy tegtal lu aju ci tukkib premier ministre Ousmane Sonko fas yéene wutali building administratif eh, ci bëccëgu tey ji ngir xool googule tax na mu bindoo ak yan ministère yañ fa mun a yóbbu ak ñi nga xamante ne daanaka lañ fa dugal ci milliard nam yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk mu ngi ci euh, yéenekaay bi di euh, Source A yéenekaay bi di Le Quotidien xëy waxtaan ak jor gi ñu denk wàllu environnement da Ngom lay wuyoo dikkaat na xamle ne euh, am na ñu yéene bokk na ci tamit ñongal wàllub alam gi wàllu environnement fii ci Sénégal xoolaat yi tamit nees mun a def ba li nga xamante ne mooy nguurug Bassirou Diomaye Faye muñ cee béy waaram yéenekaay di critique ne am na ñu ñu jot a ñu ñu fàtte fa leen ñu doon ay ministre ci gouvernement bu yees bi yéen cabinet bokk na ci Mimi Touré ban poste lañ ko fas yéene jox ak ñeneen ak ñeneen yéen cabinet mu ngi ci euh, critique mu ngi ci ñu ci euh, jukkil bokk na ci tamit lu aju ci euh, koomu réew mi Bassirou Diomaye fay ak jafe-jafe yi ko njiitu réew Macky Sall nar a jural ci bor gi ñu fi bàyyi yéen cabinet di yor-yor bi xëy di ñu dégtal cool Prodac ba léegi gi fagul bokk na ci amul benn rapport goo xamante ne daanaka. setal euh, na euh, Mame Mbaye Niang ci tuuma ya ñu tegoon ci ndoddam mu ngi ci yéen a bi di yor-yor gi l'info xëy di ñu dégtal juróom-ñaari saa yi daanaka fexe nañu ba élection présidentielle am ci anam yu mucc ayib déglu nañu askan wi bàyyi nañu xel itamit euh, ci coowal bitim réew doon sàkku itamit ñu amal élection yu mucc ayib. njiitu réew Macky na mu deltoo ginnaaw ci yile woote eh, ba élection mun a am ci anam yu mucc ayib mu ngi ci yéenekaay bi di l'info yéenekaay bi di 24 heures professeur Ahmed Ndiaye moom la waxtaan al ne ndax jotul ñu yeesalaat constitution bi maanaam teggaat suñu charte réew mu ngi ci yéenekaay bi eh, vingt 24 heures réew mi quotidien xëy waxtaan nag eh, kii di Mamadou Diop Decroix ma ngay indi njàngatam ci na mu gisee projet PASTEF la mu gis ci jamono ji mooy faw ñu tas assemblée nationale yéenekaay quotidien mu ñu dekkal dégtal lu aju ci benn Bokk Yaakaar ku jeeg politique bi fa mu nar a féeti ji ak géew politique bi ndax Yewwi dina jëmmalaat boppam ña fa ne woon te bëgg a féete ci opposition bi bokk na ci euh, opposition gu ñuy xaare benn bokk yaakaar ndax du fa jaaree tasaaro mu ngi ci yéen kaabi di Sud Quotidien yéen kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dektal recrutement gu jaarul ci yoon yorit gu jaarul ci yoon ba tax na Mamadou Mamour Diallo njiital la ONAS moom la ñuy sàkku mu jóge fa ca na mu gën a gaawee l'évidence di ñu dektal Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass jëm ci euh, tarib alquran yéen kaabi ne benn la des euh, Bangladesh daanaka jël na ndam la jot nañ ca yóbbu lu toll ci fukki eh, million moom lañ ca gagné yenn ka bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk laas mu ngi ñuy dégtal jigéen ña féete ca île du Saloum ña ngay dundal koom ga eh, bawoo ca géej ga yenn ka yi di la Soleil mu ngi ñuy dégtal lu aju ci planification familiale njeexital ak eh, la muy gàllankoor jigéen ñi mu ngi ci yéen ka bi di Le Soleil. yéen kaay geneen Walfadjri quotidien xëy di ñu tàggee taskatu xibaar kàngam la ci mécceem tasum xibaar mbay si di mbay dem na demb la génn àddina te ji dañ ko jébal boromam ca seeg yene ca Yoff yene cabinet presse bu senegal jooy na wéet ndax mbay si di mbay euh, mi wéetal euh, Sénégal ci jamono ji rawatina taskatu euh, xibaar yi Walfadjri di ko ñaanal suñu borom xare ko ci àjjana gën a kawe waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi maa leen di ziar di leen bëggee ah. waaw di wax lii benn uh, kër bu ñuy jaay la ah uh, fii si Yeumbeul Sud uh, derrière école Moussa Anta Diop bi ah ginnaaw école Yeumbeul bi rek école Moussa Anta Diop Yeumbeul Sud waaw côté Jaakaay Ndewen ku ci bëgg information yi gën a leer rek mën ngaa jokkoo suñu numéro téléphone boobu 77 911 75 66. waaw kër gi mi ngi noonu am na cinq chambres ah ak benn pentre ak benn espace boo xam pour mbaar xar la ak waañ waaw ak euh, toilette mi ngi noonu daal ngeen di jàkkaar waaw ku ci bëgg information yi gën a leer rek mën ngaa jokkoo ñun ci numéro téléphone boobu 77 911 75 66 bu si jokkee ñun rek nañ ci am information yi gën a leer waaw mi ngi noonu message en vente yëmbal si waaw mi ngi noonu am na courant am na ndox tamit. lépp tout est complète kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf.